xamne takk jabaram dafa war su ko defut ay duma moko ci fek moy ko xamne manuta muñ jigen ba pare te yaangi am loko meuna dencé manoko muñ te am nga loko meuna dencé ba pare bañ ko def ci bàkkaar ngay dëkk di motax ñu ne la yow sa tak jabar dafa war lolu motax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone ya ma'shara ash-shababi man istataa minkum al baa'ata falyatazawwaj ee yéen ndaw yi képp koo xam ne mën naa denc na uti jabar mu ne nag koo ci xam ne nag manu ko amut lu mu utee jabar fa alayhi bi sawmi na woor fa innahu lahu wija na woor woor gi mu koy dimbale ci maandu maanaam yonente bi foofu daf doon wax pour ñaax ndaw yi ne nañ uti jabar mhm. ndax mooy gën a leeral seen bët yi te moo leen di ñoŋeel waaye mu ne nag koo ci xam ne amut li muy dencee soxna xelam dafa nekk ci soxna hmm. mu ne bu boobaa pour mu damm déggi seytaane bi nga xam ne moo nekk ci moom tàngooru seytaan nay woor sooy woor loolu dafay tax nag xelaat bi ngay xelaat jigéen nag seytaane bi la ciy puus loolu dafay wàññeeku kon kii sëyam dafa dagan kii sëyam dafa xaraam amaa ki nga xam ne nag am na lum dencee jabar hmm. waaye amuti amut amut déedéet amut problème yi sëy mm. maanaam du xelaat jigéen ak du problème waaye am na kook dañoo sopp ci moom pour mu takk jabar waaw comme que dëgg la xelam nekkut ci waaye nag comme que am na lum dencee na ko def ngir doom yi ci juddu ñaareel bi itam nga dimbale jigéen ñi itam nga takk leen wax dëgg yàlla te su ñëpp defoon ni yow doo juddu maanaam soo bañee takk soxna ñëpp def ne yow doo doo judd soo noonu la seetee ne sëy àtte yooyu moom la am soo ñëwee nag ci suñ société bi da nga gis mbir yi daf dee jaxasoo lool léegoo leen ko gis nit koo xam ne warut a takk jabar maanaam comme niñ ko waxee nii mm. waaye nag xam naa loolu duy bare duy bare ndax kooku néecoom dafa beenu dafa am doomu aadama boo xam ne néecoom dafa beenu loolu bokkut ak soxna ay Ayda góor gi nga xam ne eh, dafa feebar xam nga ki nga xam ne góor nga dara jotu la waaye sa xel mi nekku ci bokkut ak ki nga xam ne dafa feebar mm-hmm. kenn santul ko mu uti jabar mm-hmm. ko dafa lim su utee jabar dafa dafay tey lu dafa xaraam wóor na la ne mënoo a denc ba pare nga dem di nga dem di denc te yow taxoo de ki ngay lor moo tax mbooleem waaw ki ngay mbooleem fi ñuy waxee naan dafa xaraam mm-hmm. jëmut ci jëmut ci sa bopp de déedéet bañ àq keneen moo tax ñuy wax parce que su fekkoon ne bëri nga alal su jigéen di soo ko indee da nga ko jox kër géeg euh, oto yeeg lu nekk mu ngi fa waaye manoo man manoo ko jëfandikoo masala manoo xa tëdd ak moom taxul ñu wax sëy taxul ñu wax te yaa ngi koy lor loraange boobu fan nga jëm ak moom. maanaam mooy loolu daal mënoon na ko amee feneen. yéen pour néegi sëy mu ngoog danga feebar. Mm-hmm. kon léegi bul ko uti. Mm-hmm. kon soxna Aida yooyu mooy charte yi léegi nag suñ problème bi nga xam ne moom lañuy dund mooy ñun jullit ñi lu ëpp si ñun du ñuy jàng eh, xam sew-sew yi ba pare tam du ñuy xam priorité. ñu ubbi line bi balaa ngaa ñëw ci sew-sew yooyu. <laughs> xam naa ne euh, bokk yaa ngi yàkkal bi pour bokk ak ñun waxtaan wi eh, bu nag bokk yi mën ngeen a oote ci téléphone bi eh, euh, bu ko defee ñu ànd ak alaaj Ousmane tey lu ñoo waxtaane mooy mbir sëy lan mooy sëy ak ñan ñoo war a sëy gis ngeen fi nga xam ne foofa la ko tàmbalee ak lan moo tax euh, ñu war a sëy Eh, ñi nga xam ne góor a jigéen ku ci nekk da ngay mottali sa moroom muy lu ama am solo eh, bon nag mun ngeen a oote ci nomba yi nga xam ne moom ngeen a gis ci seen screen bi eh, loo leen bëgg a laajte ci bunta bi nga xam ne fa leen tolloogum eggaaguñ ci jafe-jafe yi ak sëy yi tas yi boobu moom nañ koo bàyyeegum ba ci kanam li ñoo waxtaanee rek mooy ku bugg a xam kana kana war a sëy ak ñan ñoo warut a sëy loolu moom la ñoo waxtaanee boo leen ko mu ne laajte ngeen laajte ko rajo Ousmane nga jekkali waaw jërëjëf soxna Aida mm. Euh, daf doon jaadu nit balaa nga dugg ci sëy mhm. nga xam charte yeeg sew-sew yeeg tëralini waaye loolu dañ ko sàggane dëgg la loolu suñ ñëwee di waxtaan ci problème yi xew ci sëy yi mhm. danañ ko boole ci sabab yi bokk ci waaw dafay bokk ci sabab yi mhm. waaw euh, su ko defee euh, soxna Ayda am na mbir yu bare bare yoo xam ne mu ngi laxasu ci ci mbir mi comme que ubbi nañ line bi mm-hmm. euh, suñ ko suñ ci duggee dana nekk ay jafe-jafe mm-hmm. waaw euh, suñ ñëwee ci sëy itam l'islam danay bàyyi xel iij euh, ñu jël bi asalaamaaleykum waaleykum salaam bisimilah wàññi wàññi télé bi tuuti wàññi télé bi wala nga sori ko waaw ah. kay bisimilah jaama ngeen. sant alhamdulilah. seen programme bi nee na woon. jërëjëf di si baaxeelu. alhamdulilah. waaw waaye nag affaire yi sëy dama si bëggoon a contribuer rek man tuuti. bisimilah bisimilah. waaw dama gëm ne sëy tamit. Mhm. waaw ñetti affaire moo koy gën a mooy mooy foundation bi daal. Mhm. waaw. waaw mooy benn bi mooy njëkkeel bi mooy foog dëgg nekk seen diggante. Mhm. ndaxte mhm. ñu bëri dañoo indi seen jabar si kër gi fekk liñ ko doon won ak liñ ko doon xamal ne ak liñ doon fere yëpp si affaire yi ngoro gi yëpp nekkul si kër gi mhm. waaw nga indi ko si kër gi mu ñëw gis loolu yëpp mhm. mu ceeñ maanaam ne ah kii ndax ma doon nax waaw xam nga boobu mooy force bu njëkk waaw beneen bi mooy óolute óolutee soo indee sa jabar si kër gi te seen diggante tamit foog mm-hmm. ngeen gomante mu am ne kii mm-hmm. gom gom naa ko gom na ma seen mm-hmm. sëy bu mun a dem waaw ñetteel moo foog tamit mooy bëggante waaw bëggante tam foog naa ne su nekkee seen sëy yéen ñaar ah, doo ku nekk du defante sa morom lu bon daal ku bëgg def sa morom lu bon ah, de bëggeel ma ko ko def ndax bëgg naa ko du lool famille am du lool dara waaw doo dama loolu laa doon bëgg a. jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf. jërë ngeen jëf ootee baaba. maa ngi ootee Bundung Bool. ah jërëjëf jërëjëf. Adja Aida tomb yi mu wax xam naa suñ ñëwee bay traité si mhm. eh, problème yi waral sëy yu naqari. waaw bokk ca. Eh, waaw dinañ recall. Mhm. tomb yi tomb yu am solo la fa tabaarakallaa bu ñëwee ba foofa xam naa foofa lay gën a kii bokk na ci fondement yi war a lal waaw yi war a neexal néeg bi daal waaw moom moom mu ngi wax ci yi neexal néeg dëgg la waaw wax dëgg yàlla waaw ñu jëlaat ki ci laaj bi salaamaaleykum bisimilah waaleykum salaam ahlan bisimilah yéen ñaar ñëpp ñëpp tuubal ci fan ñu dem fan. waaw very good. Mm-hmm. waaw waaw <laughs> li mu wax rek xam nga yaa ngi wax fii ne góor a war a am kàddu. waaw wala xam nga bii muy wax moom. Mhm. Euh, xam nga sëy affaire la. Euh, jub topp yàlla beneen affaire la. léegoo léegi nga gis jabar joo xam ne moo gën jëkkëram moo ko gën a jegeñ yàlla. Mhm. léegoo léegi safaan ba dafay am. Mhm. yàlla won nañu ko. ci ifun ñañu jiitu woon mm-hmm. imraata nooxin wa imraata loot mm-hmm. kaanataa taxta abdayni min ibadina saalihayni fa xaanataahuma jabar mm-hmm. jabar yonti yàlla loot seen jëkkër ay yonent lañ ñoom ñu nekk ay saay-saay jabari firawna firawna mbonam ga jabaram ba nekk niti yàlla soo su fekkee ñaar dugg nañ ci biir diine il faut ñu tanewante waaw su fekkee kenn kii moo gën a sóobu nay ñaax moroom ki waaw suy nelaw na ko yee na ko kilo bu mu ci seet nag mu euh, këli la koy naqaree naqareeg déedéet na approche am neex rek hmm. nu ko ko nga baal ma man dama la jàmm rek laa la hmm. bëggal nanga ma hmm. da ñu maslaa mu dem waaw rek mu dem waaw parce que foofu moom amul lu ñoo tuddee leadership ak nangam leadership du foofu déedéet leadership du foofu leadership suñ ko waxee ci góor mooy comme que maa la dugal ci kër gi te li nga soxla it maa ngi la koy dugal